maaleykum sama gaa ñi tey le lundi 16 septembre 2024 dellu soit ak yéen seen actualité politique nationale xam ngeen ne démb réewum Sénégal màggal na lu ñuy wax mawlud mu nekk benn xumuteelu diine bi nga xam ne moom mooy consacrer la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui te xam ngeen ne ci réewum Sénégal lépp li nga xam ne. Euh, xumbuteel politique la dafa am lu ñuy wax cérémonie officielle cérémonie officielle nag ñaar ñoo koy màndargal mooy maanaam dinañ def ci wàllum diine jàngat ji nga xam ne moom moo waral bés bi mu amaa la ñu contextualiser ko ci wàllum politique mooy maanaam ci réewum Sénégal nu ñu wax euh, diine sans boole ci politique parce que ñoom ñaar dañoo ànd di di di demandoo te yàq kenn yàqalul dara sa moroom loolu moo tax ba lépp li nga xam ne cérémonie officielle la ginnaaw bi nga xamee ne jox nañ diine wàllam politique aussi da ciy am wàll ci loolu noonu la guide religieux bi nga xam ne moom mooy chefu Moustarchidine di euh, Moustapha si yëkkati na ay kàddu ñun ñëpp dégg nañ kàddu yi du jar ma ci indi dellu si waat kii nga xam ne aussi moom mooy xalifa Niass sa Kaolack aussi yëkkati na ay kàddu politique léegi nag lii nga xam ne moom moo ëpp solo dañoo nekk ci benn contexte bi nga xam ne dañuy dem ci élection te élection législative yi nii dafa am ay mbir yu koy mandal mooy maanaam une recomposition de la classe politique sénégalaise gis ngeen ne coalition bi nga xam ne moom mooy coalition bi gën a rëy di coalition benn bokk yaakaar tas na te ci beneen wàll bi am na yeneen coalition yi nga xam ne ñu ngi juddu ci centre coalition benn bokk yaakaar Amadou Ba mu ngi ber langu yoon langu boppam créé euh, coalition bees bi nga xam ne kàllaama responsabilité am na ci ñeneen ñi aussi ñu ngi regroupé wu mooy maanaam taxawu Dakar ku nekk yaa ngi déem a xool nan nga defee alliance moom benn mbir bi nga xam ne espécificité sénégalaise la xam ngeen ne li taxoon ba kii di euh, njiitu joriñ di Ousmane Sonko créé woon coalition Yewwi Askan bi mu nekk li nga xam ne lu am solo la plus grande coalition parce que ci réewum Sénégal gagné élection dafa nekk li nga xam ne lu jafe la ndaxte euh, configuration sociologique gu sénégalais la ndaxte sénégalais du du idéologie politique la ñuy topp wala du du programme politique la topp ñoom ay. ay ay ay chef politique la topp mooy maanaam ay leader politique la ñuy topp tax si loolu moo tax kaddu ngëm-ngëm di wax ne diw laa gëm nekk li gën a fës si penc mi parce que boo xoolee patriote yu bëri dañ lay wax ne la ñoom Sonko lañ gëm Sonko lañuy topp am na ñeneen ñi nga xam ne nag keneen lañ gëm loolu nag mooy moo tax ba élection ci réewum Sénégal boo ko nar a teg ci programme kese wala boo ko nar a ci offre politique kese tu peux passer à côté pour nga mun a am lenn li nga xam ne mooy maanaam mën nga gouverner Sénégal mooy foog nga ratifier lépp li nga xam ne composante réewum Sénégal la moo xam lii jëm ci wàllum diina yi wala tarixa yi wala euh, këru foyer religieux yi wala askan yi ndaxte dañuy wax ne soo jógee sa euh, sa sa kër soo euh, boo boo nga dugg si beneen kër te kër boo di fa fekk borom maanaam xam nga tey. boo leen xoolee Casamance am na askan bi nga xam ne am na ko ñu faral boo leen demee Fuuta am na askan bi nga xam ne am na ko ñu faral boo leen demee Sine loolu nag pour nga gouverner Sénégal yëpp foog nga fexe ba lépp li nga xam ne moom mooy comme moom mooy la diversité sénégalaise ci wàllum gëm-gëm ci wàllum tarixa ci wàllum cosaan ak aada nga fexe ba électricité large nga am si une large coalition bi nga xam ne moo lay mën a may nga am ndam nga mën a gouverner réewum Sénégal moom nag contexte bi nga xam ne wax naa leen ne loolu bu fekkee ne coalition Diomaye bi nga xam ne moom tamit mu ngi Euh, juddoo ci dóomu coalition yeewi askan bi xam ngeen ne ba ñuy dem euh, maanaam avant ñu dem élection présidentielle yeewi askan bi amoon na jafe-jafe parce que ki ci ëppoon taxawaay di taxawu Dakar da génnoon te ñoom tamit seen pacte nekkuloon présidentielle parce que ñoom législative ak euh, ak municipal kese la ñu defoon accord ma ne ci la ñuy ànd bu ñu demee présidentielle ku nekk ber sa langu bopp loolu taxoon na ba Déthié Fall am candidat pur am candidat yeneen parti alliés yi aussi ñoom ñëpp ñoom seen candidat ba ci ay Malick Gakou ndax mbir moom noonu mun na impacter coalition Diomaye lii wóor ba leer mooy lii di coalition Diomaye ñaar la am pour mandargal ko mooy maanaam lu ñu wax rassuré ndaxte am nay polémique yi nga xam ne du polémique yu ndaw judd nañ ci réew mi li ko dalee coowal voile bi nekkoon na fi polémique mu am mu yëkkati woon euh, mu yëngaloon réewum Sénégal am na fi aussi coowal bii nga xam ne nee nañ Cheikh Omar Diagne moo ko indi ñaari mbir yooyu noonu taxawaayu coalition Diomaye mooy rassurer les sénégalais loolu yaakaar naa ne suñ ko deful dina pour na mettre un coup d'arrêt si seen ascension politique bi nga xam ne mooy score bu rafet bi nga xam ne amoon nañ ko ci présidentielle muy 54 pour cent soo moytuwul euh, dinañ ci am jafe-jafe mooy sama jàngat sama gis-gis la sama xalaat laay wax. léegi nag pour tëj actualité géopolitique mondiale laa koy tëjee yaatal bi yëpp mu ngi ci YouTube bi. am na benn avion bi nga xam ne bokk na ci avion yi ëpp solo ci réewum Amérique euh, ñu koy wax le jugement dernier nekk benn euh, avion bi nga xam ne Boeing moo ko defar avion boobu décollé na te avion boobu noonu moom buy jóg lépp luy jëm ci wàllum nucléaire moo tax muy jóg képp ku xam nag lan laa jàngat lan moo war a tax avion bu jóg ak lu tax mu décollé soo demee ci YouTube bi di ci fekk yaatal bi seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal